jublu ci ñu bàyyi imaam Alioune Diop mu jàngal ñu ay ayat ci alquran ñu barkeeloo ko ci bés bi ak waxtaan bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن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 وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثق قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم xatmil muhammadi rabbaani abil abbaas mawlaana cheikh seydi ahmad tijaani radiallahu taala an sammi hada alwaliy alkabir walcheikh alkabir yusammaahu cheikh seyd ahmad tijaan si almaktum ibnu cheikh seyd aboubacrin si alxalifa ibnu cheikh alxaaji malik ibnu osmaan ridwanullahi mbokki jullit yi yi fi teew ñi ci réew mi ñi ci bitim réew ci cinq continents yi ci àddina bi yépp mbooleem fu nit nekk di déglu wax ji walla di ko seetaan di ko gis boole di ko déglu ñu ngi lay nuyu ci nuyoo bi gën a yell ci yow jóge ci yàlla jaar ci rasulullahi sallallahu alayhi ñëw ci jullit ñi ñu jottali la ko te di la jox wàccuwaay bi nga xam ne moom nga tolloon ci suñu boroom donte ñun xamuñu ko ci góor ak ci jigéen ci mag ak ci ndaw ci ku jege ak ku sori lii ñu fas yéene def ñu ngi ci jublu rekk la yàlla waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te xam nañ ne yonent bi ku yàlla bind moo la gën lu yàlla bind moo ko gën lu dul yàlla rekk yonent bi moo gën loola te li muy baax baax baax yàlla geesu na ko ay yoon ci alquran ne ko wazkur fil kitaabi ismail wazkur fil kitaabi idris wazkur fil kitaabi ibrahim wazkur wazkur wazkur fàttalikul sa téere maam ibrahima sa téere maam ismail sa téere maam idris te ñooñu yàlla di ko wax ne ko fàttaliku leen moom moo leen gën kon ki baax ndem ki baax la yàlla sant muy fàttaliku ci keneen kon ah ki melul nenn walla ki nga xam ne mu ngi xeeñtu mbaax te bëgg a yegg ci kaw war na bàyyi xel ñi yàlla baax la woykat ba waxoon nag ne wa bi zikrihim tanazzulu ruhamaat fàttaliku gi ñuy fàttaliku nitu yàlla yi yërmande yàlla daf ciy wàcce ndax ñoom seen jëmm mooy làqu waaye seen roox mu ngi ànd ak ñun fuñ toll ci ñu yëg ak ñu bañ a yëg ci ko xam ak ci xamul wala taxsabanna alladina xutilu fi sabilillahi amwaatan bal axyaun inda rabbihim yurzaquun farixina bima aataahum allahu wa rasuluhu wa yastabshiruuna billadina lam yalxaqu bihim allaa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun loolu alquran la yàlla ne bu leen jortu ne ñi nga xam ne dañ nekkoon ci li ma neex man yàlla be fàddu jóge fi bu leen yaakaar ne dem nañ de yàlla ne déedéet ñu ngi fi ma di leen wërsëgal ci wërsëg yi gën a tedd te kowe ñuy bëggal ñi nga xam ne yegg seeguñ ca barzaq naan leen bu tiit bu leen ragal ndax fii baax na ba noppi fii neex na ba noppi kon loolu waxu yàlla la du sama wax allah xawfun alayhim wala hum yaxzanun moo tax tey ñu tànn góoru yàlla bu yàlla baaxal ci xam-xam bu téere bu yàlla baaxal ci xam bu baatin waaye bu yàlla baaxal ci ku am itte yu kawe ku yàlla baaxal ci ku fàttewul réewam ku yàlla baaxal ci ku fàttewul ne yàlla dafa waxoon ne i'malu wa qul i'malu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal muminuuna wa saturadduuna ila alimi alxaybi walchahaadati fa yunabbiukum bima kuntum taamaluun moom ku ko bàyyi woon xel la bi réussir ko ku nangu woon a liggéey la ci ñaqam di ci tedd di ci terle loolu dana ñëw ci biir waxtaan wi ku nangu woon a sonn la ci wàllu yëngu ndax teel a yëg ne rek yàlla daf ko sant pour mu yëngu fa tabaarakallaahu kon ñuy jeexale nag ca lenn ci li ñu xam tem tuuti lool ca la ko yàlla defal ci wàllu wilaaya loo xam ne yàlla dënk na ko ko ba noppi mu nëbb ko niru ci maamam Cheikhul Xaaji Malik fees dell te du yëngu du dóor dënnam yàlla may na ko yegg ca some ba waaye wàcc ànd ak ñépp ba ñépp loolu it yàlla mayoon na ko bu ci nekk it danañ wax la ko ko may ak fa mu ko jëlee ba ñun ñi nga xam ne ñoo ciy wax ak ñii déglu ak ñii seetaan ñu xam ne yàlla mayewul de dafay jaay inna allaha ashtara minal muminina bi anfusihim wa amwalihim bi anna lahumul jannata yuqaatiluuna fi sabilillahi fa yaqtuluuna wa yuqtaluun waadan alayhi xaqan fi tawriti wal injil kon yàlla li mu yor xaajul maye day jaay moom nag yàlla faggul ko lii moo ko jënd lii nag barke baayam la incha allahu taala waxtaan wi ñuy def ci moom tey le 21 tey di ajjuma le 21 juin 2019 incha allahu le 19 juillet 2019 ni ko ñépp sàkkoo ci man incha allahu fas naa yéene def waxtaan ci way juram Seydi Aboubacar Sy incha allahu fii ñu toog lañ koy defee muy ajjuma na ko ñépp bàyyi xel ajjuma le dix dix juillet bii di ñëw incha allahu taala danañ def waxtaan wu ñu mel ci Seydi Aboubacar Sy ibnu Cheikhul Hadji waaye tey doomam la ñuy wax Tijaan si Al Maktoum doom la ju baax ju gane àddina ci diggante wuy jur wu góor wu ñuy wax Seydi Aboubacar si Seydi Aboubacar si moomu woy jur wu góor wu ñuy wax Cheikhul Xaaji Malik moo ko jur Cheikhul Xaaji Malik moomu woy jur wu góor wu ñuy wax Maam Demba waaye Seydul Xaaji Malik moo soppi turam tuddee ko Osmaan Demba Xoreja la tuddoon Seydi Xaaji Malik def na ñaari kéemtaan ñu bari xamuñ ne Maam Osmaan Demba Xoreja la tuddoon moo tax nga dégg ñu naan si Malik si dem ba bunna si dem ba xoreja fa tabaarakallaahu seydul xaaji malik ne turu ceddo la mu soppi tur ne usmaan soxna safiyatu ñang biy soxnaam di wayjuru cheikhul xaaji abdul aziz te dina dugg ci biir waxtaan wi moom it alfi la tuddoon cheikhul xaaji malik ne turu ceddo la ne safiyatu loolu nag ko amul yenn martabay ci yàlla mënuloo ko kon wane na cëru Seydul Haj Malik sëriñ Babacar si moomu nag Seydul Haj Malik a ko jur Seydul Haj Malik maam Osmaan a ko jur dangay topp silsilaam nag ba ci samsu diin ba ci faatimatu dahra ba ci rasulullahi kon ñu wax ne sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane si bu dee ci deret shérif xaqan la di sotu yonant bi waaye bu maamam cheikhul xaaji malik moo tànnoon nëbb sharafu tiinam feeñal sara sharafu diineem mooy tedd nga ci diine moo ko gënaloon tedd nga ci deret kon shérif yi fi nekk yépp ñu ngi leen di nuyu yéen lañ waroon na jiital qaddimu qurayshan wala taqdimuhum ñu ngi leen ciy jéggalu yàlla def na kon cheikhul xaaji malik shérif xaqan la xasani la boole ci moo tax am na yenn cër ci tariqa bi ak islaam bi boo dul shérif doo ko mën a yenu ndax leer ga tax nga war koo mën a yenu leer gaa dul mat te bu leer ga matul moo ku war a yenu 10 kilo nga yen ko inton tonne dina sotti du sotti ku war a yenu 10 kilos nga yen ko une du dem tànk yaay damm sax foofu looloo tax na ku dul sëtu yonent bi am na maratib yoo xam ne doo ci yegg bokk na ca xutbul fardul jaamia kooku moom sëtu yonent bi rek a ko mën a nekk ba pare ci xasan ngay bokk yi tamit loolu Cheikhuna Tijaani nee na maamam moo ko ko garantil keroog bi mu ko yenoo ba bés penc di tëgg euh, euh, taxaw keroog bi Cheikhuna Tijaani yenoo maqamatul xutbaaniya nee na keroog la ko maamam ne nag ku dul yow ci sa tariqa bii lay bokk ku koy doonati ba bés piñ ci taxaw ci sa tariqa bii lay bokk shérif lay doon xasan yi lay doon loolu martaba la ci tariqa bi tariqa bi rek ko ko am keneen amu ko kum neex nag nga essayé aqtaab yi nag bari nañ mën nga nekk ci yeneen xutbu yi maanaam mën nga nekk ci mafatihul kunuz yi ay xutbu lañ man nga bokk ci aqtaab yi ay xutbu lañ man nga nokk bokk ci nujabaa yi man nga bokk ci sulaxaa yi waaye al qutb al fard al jaami kooku Cheikhuna Tijaani nee na maamam moo ko garantil ila yowmil qiyaamati keroog bi mu ko yenoo moom ba bés peñ ci taxaw ku koy yenoo tiijaan ngay doon Chérif ngay doon Xasani ngay doon kon buñ ne Seydul Xaaji Malik yenu woon na ko kon nasab baa tax bokk na ci waaye xam-xam ba bokk na ca waaye yar ya toog bokk na ca teggin ya bokk na ca orma ya bokk na ca lépp day gaar jikko yi yépp ñu door la ko yen bu ci manqué rek doo ko yenu te feeñ na ci téere bi ko alaaji ahmad dem bu sookoon bindoon muy cinquante cinq question bokkoon na ca kuy xalifa Cheikh Sidi Ahmad Tidiane loolu nag kii ñuy waxtaanee yenu woon na ko te du wax rekk lu ñu neex dana feeñ ca kanam mu ganee àddina moom Cheikh Seydi Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum cëram rek yaa ngi koy njëkk a xamee ci turandoom yépp moom rek lañ ciy wax Al Maktoum seetlu leen ko turandoom yépp Cheikhuna Tidiane yi turandoom yépp moom rekk Serigne Cheikh Tidiane si moom rek ngay dégg ñu ne almaktum ku dul na Tidiane yi doo dégg ñu ne la almaktum fan yële nag dégg naa doon naa seetaan reportage ci France 24 may seetaan ca turki am na fa boroom xam-xam bu mag bu ñu fay wooyee almaktum bu siiw ñu di ko wane ndekete ci tarixa bi la bokk maa ko seetaan fa tabaarakallaahu waaye ba mu nee tëll rek àddina bi bëgg a tukki ma ne ah ndiki tarixa bi yem na Sénégal rek ji waaw kon eh, turam wi turandoom laal na ci te dana ñëw Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum mu ngi gane àddina mercredi lii may wax nag lu ngeen dégg ma wax maa ngi ko jëlee ci làmmeñu Serigne Abdou Aziz Al Amin wala Cheikhul Hadj Abdoul Aziz Dabakh walla Alxaaji Malick Cissé Jinge wala Imam Moussa Guèye wala woy juróom Alaaji Ousmane Guèye te ñii ñépp ku ci nekk daroon nga kepp Serigne Cheikh bi xam ko sopp ko lool it nag fa tabaarakallaahu ci ñoom laa jële yi information balaa may wax ci moom tey woo naa xaaji Malick Cissé Jinge maam Malick maam Malick Cissé Jinge woo naa ko laaj ko la ma ca soxla woon mu wax ma woo naa it laaj ko la ma ca mu wax ma ma ne leen nag dama fas yéene waxtaan ci Serigne Cheikh moo tax ñu ñaanal ma ndax defoon naa ko ca ba may waxtaan ci Seydi Hadj Mansour ak Seydi Hadj Habib dama woo sëriñ Habib bu sëriñ Mbay si Mansour al xalif yal na yàlla xalif général de Tijane yàlla dolli wéram te bàyyi ko ci kanam njaboot gi mu jox ma ca moom it ndigal jox ma ca ay grandes lignes yu mag ma waxtaan ci ba tey ñëpp a ngi koy déglu di ko seetaan ndax nit booy wax ci moom bul waxee bakkan loo ko bëgg-bëgg li ngay wax teg ko ci xam-xam teg ko ci sharia teg ko ci sunna ndax ci ngay dimbalee sa kilifa waaye toog rek di wax lu la neex rek loolu ñépp mën nañ ko loolu ñépp mën nañ ko waaye ku bëgg a dimbale sa kilifa sooy wax ci moom na nga ko teg ci sharia ak sunna ak xam-xam rek nga sopp ko ci sa xol te bàyyi ndax fanatik nag baaxul bu ëpp baaxul bu ëpp kon Sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane si mu ngi gane àddina le mercredi le 29 décembre 1925 mu ngi gane àddina it 4 heures du matin ci source yi ma laajte bi mu ganee àddina mu ngi fekk Seydi Aboubacar si di waajal dem ca jàkka ja ndax sëriñ Babacar si mii woy juram wax na ci gémmiñam ne am na junni guddi moom Seydi Aboubacar yoo xam ne ni mu toogee du ko soppi gannaaw gee ba fajar xar lu dul muy dem ca jàkka ja junni guddi nee na ni mu toogee toogi ni kuy julli du ko soppi mu ngi ci digganteem ak boroomam ba fajar xar yëf yi kon dañ koy jënd de yëf yi day jaay ci nii rekk ñuq wala ñuqi ñuq wala ñuqi te dina feeñ ci biir wax ji Seydi Abubakar yëg xibaar bi waaye teewul mu dem ca jàkka ja def nam daan def ba noppi mooy julli wadifa ñëw ci kër gi waaye rakkam ju baax jii sës ci moom rëkk te mosu koo rëkk muy Cheikhul Hadj Abdoul Aziz ndeke yàlla xamal na ko ko te daawul fajaru sëñ Babacar waaye bi sëñ Babacar jóge jàkka ja ba ñëw toog tuuti rek Cheikhul Hadj Abdoul Aziz ñëw nuyu ko ne ko si ñu ngi lay ndokkeel ci gan gi xanaa maa moom tur wi lu ko xam loo ne góor la ah est-ce yooyu sax moom bañu ko baax na waaye nag yuuxu laay bañ lu ko xam loo ne góor la waaye ki mu ko waxit beneen affaire la Seydi sëñ Babacar si mu ne sëñ Babacar ne ko ah Abdou yéene naa la ko lool waaye yeggal ci moom nga xool ko dafa indaale turam waaw <laughs> ah, Cheikh El Hadj nee na bi ma yegg see xool ko. maa ngi gis ñu ngi ci bind ci jëm Cheikh Sidi tiijaan yi si mu ne maa ngi fekk turandoom jox ko kurus mu téye kon moom dafa judd la judduwaale wilaaya moo tax nga dégg mu daan wax ne ku toog ba mag di xëccoo wilaaya mu ne la la raw la la raw bari na ca ba ngay gone lool mu ne yàlla du toog ba nga màggat mu di la roof wilaaya loo koy doyee ba ngay ndaw la la koy roof nga màggaale ko yàlla def sëñ Abdou Cheikhul Hadj Abdou ñëw ci sëñ Babacar ne ko nangu naa li nga wax ndax gis naa ko moo indaale turam dafa gane àddina indaale turam am na ñoo xam ne dañ leen koy bindal ci seen yaram du ma tudd turam di ko weer waaye góor gi Moussa Ba am na ñu ko xam mu ngi fi Parcelles seen nitu yàlla bu mag la benn ci doomam yi am na ci koo xam ne bi mu juddoo yaram wi dañ ci bind benn aaya alquran ak turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu leer nañ ñi nag ba léegi mu ngi ci yaramam te war na am juróom fukki at léegi passé na sax juróom fukki at yooyu ay màndarga yuy am ci nit waaye moom ci leer lañ ko bindee ci jéem damay bañ kii seetaan wala di déglu ne ah mu ne dañ ko bind ci jëwu Seyd Cheikh Seyd Ahmad Tidiane si al maktum te kenn gisul fuñ ko mës a bind waaw ma jox la beneen boo xam ne di ko nangu buñ demee ba barzaq ñu yeeñu ne tey la bési xiyaama ñu jóg ànd ak Seexuna Tijaani yal nañu ko yàlla defal ba dugg àjjana jëwu taalibe ya luñ cey bind am na luñ cey bind mbaxana yañ leen di solal ñu malaaka yi di leen ko xàmmee laa ilaha illallah lañ cey bind muhammadu rasulullah seen jéeya am na luñ cey bind loolu dina ñëw ci biir waxtaan wi waaye bind booba binduk leer la ku yàlla leeralut doo ko gis salaatul faatihi bi wala mahmudul kurdi biñ ko koy jox feuille biñ ko indil gannaaw ñeent fukki ati xalwa ak ñeenti weer ak ñeenti fan biñ koy indil kayit gi boo tourné kayit yi xam nga mbind mi daa waroon a juutu waaye boo ko tourné salaatul faatixi la boo ko tàllalee salaatul faatixi la boo ko wettalee salaatul faatixi ndax ci leer lañ ko bind moo tax ma def benn bay na xaw say nii bi nga xamee ne sëñ Abdu moo tax ki topp ci sëriñ Cheikh muy sëñ Abdu ñu tuddee ko alaaji Abdul Aziz muy sëñ Abdul Aziz al Amin moo topp sës rekk ci sëriñ Cheikh ñu tuddee ko sëñ Abdu Serigne Cheikh moo indaale turam sëñ Babacar si daan na wax ne xaw ma turam ndoobee tax ma bëgg ko wala xaw ma maamam Seydil Xaaji Maalik tax ma bëgg ko sëriñ Cheikh nee na keroog bi ma déggee loolu laa commencé di ko sori mu ne ndax xam naa ne bu ma ko jegee du baax mu ne ba daan naa ñëw nuyu ko sax mu ne ma Cheikh Tidiane yaa ngi ci dëkk bi. ma ne ko maa ngi fi de mun dama laa gëj a gis di ma ne ko maa ngi fi rek nee na dawaat naa toog juróom-benni weer wala juróom-ñeenti weer sëñ Babacar du ma gis ndax baat boobu mu waxoon ne ko mu ne dama toog mu ne ma Cheikh Tidiane man xaw ma sa maam Alaaji Maalik tax ma bëgg la wala boog turandoowee tax ma bëgg la waaye bëgg naa la lool kon xam nga ne kooku am na sens te juddoogul waaye yéen jigéen ñi am ngeen ci part de responsabilité déglu li may wax wax naa la léegi ne way juram sëñ kër si sëtu yonent bi la waaye ndeyam sëtu yonent bi la maam Abdou Hamid Kan moom it boo ko dàqee ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaayam xaafidatul quraan la woon dafa mokkaloon al quraan soxna astukan ndax moom it xut boo ko jur bu ñuy wax maam Abdul Hamid Kan kaana min al aqtab maa nangu ci làmmiñu Cheikhul Hadj Abdul Aziz mu ne keroog bi ko yàlla xamale ne war ngaa bokk ci xutbu yi waaye fokk nga sonn nee na mu woo Chérif Yunus yónnee ci moom ndaw ne ko yàlla yëgal na ma ne dinaa bokk ci aqtab yi waaye màndarga yi ma ciy boole laa bëgg nga defal ma xëlwa ma xam ko pour bokk ca Chérif Yunus def xelwa ñetti fan ubbi yónni ndaw ci moom ne ko benn seul charte la am pour bokk ci aktab yi yépp yépp garanti naa ko ko ci ndigalu Cheikhul Hadji Malick ndax Chérif Yunus ak Seydi Hadji Malick ay complice lañ mu ne garanti naa ko lépp ba mu des benn foog mu am ñeent fukki at yoo xam ne du manqué waxtu yi juróom ci jàkk ñu yaakaar na yëf yi dafa yomb yombul fo mu ne ko ñeen fukki at yoo xam ne doo manqué waxtu yu juróom ci jàkka nga koy jullee fajar tisbaar tàkkusaan timis gee pour mën a yëg ci maqaamatul xutbaani mu ne ko soo nangoo rek ma garanti ko ci barke Seydil Hadj Malick nee na maam Abdou Hamid kan ne ko nangu naa mu ne ko kon garanti naa la ne dinga bokk ci aqtaab yi góor gi xam ne seytaane dafa bari pexe mu tabax zaw yi ca kaneen moo indi zaw yi boobu ñu ko denc ci tey mu ne bu zaw yi nekkee ci biir kër gi bu ma jógee sama néeg dugg ci zawiya bi ndax néegam ak zawiya bi ñoo communiqué mu ne bu ma feebaree sax tëdd ci lal bi tollaleeg waa zawiya bi ndax maqam bi rek bëgg caa jot jar na ko it nag kon mën nga ne doomu xutbu la doomu xutbu la doomu xutbu la maamam yépp booy juram ak i maamam ba ci yonent bi ay oxtaab lañ wàllu ndeyam maam Abdou Hamid kan ba ci yonent bi ñépp ay xutbu lañ waaye ndeyam di soxna astukan doon soxna su baax nekkoon ci loxo Seyda Aboubacar jiituwu fa waaye am na fa cër moom Seydi Aboubacar moom bi nga xamee ne sëñ Cheikh gane na àddina dafa fekk boobu 1922 la Seydi Hadji Malick génn àddina du ah kañ 22 bi mu génnee àddina 23 24 25 26 27 sëñ kër si toogul Tiwaawan bi Seydil Hadj Malick génnee àddina rek sëriñ Cheikh a ngi koy wax biig maa ngi koy seetaan bi mu génnee àddina gouverneur général bi fi newoon moo ko moo ko jaalee si ne ko bul wutoogum sa bàyyi de mu ne ko boo ko defee rek nit ñi yàqal la ndax nit ñi teeyuñu mu ne ko xam naa ko bi dëj bi jeexee rek sëñ kër si jël rakkam yi Seydi Hadji Mansour euh, Seydi Hadji Habib astaghfirullah Seydi Hadji Habib waaw Seydi Hadji Mansour ah, du noonu euh, Seydi Hadji Abdoul Aziz ñépp mu jël leen yóbbu leen Ndar pour ñu yeggali seen àlluwa ak seen tarbiya mu toog fa moom sëñ Babacar si di jóge Ndar romb fef Tiwaawan ñëw Dakar ci xàmmeem